poson beneen kii ñuy wax ne tuddal nga ñu aju ci li nga xam ne moo di maandu tey amir muminin Omar ibn Abdul Aziz mu nekk sañoon daal ñu dellu ko ci incha allah kii di laaj ndong li nga xam ne mu ngi jàng diinam góorgóorlu ci dajale lu mën ci xam-xamu sharia kooku nan lan nga koy laaye bi wala boobu yan melokaan moom la war a yore ba daawaam jàpp waaw alhamdulilah laaj bi aju ci turi sunu borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne borom bi tabaraka wa am na juróom ñeent fukki tur ak juróom-ñeent waxul téeméer comme ni mu ñëwee ci laaj bi am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yoo xam ne foofu ni mu ko waxee ne yoo xam ne ku ko takk tabbi àjjana kon dañuy xam ne loolu doomu doonu turi sunu borom tabaraka wa wala juróom-ñeent quatre-vingt-dix-neuf yooyu xaasiyam mooy loolu maanaam bokk na ci ay njëriñam loolu moo di ku ko takk tabbi ajana man ahsaaha nag bokkul ak man xafisaha xafisa moom mooy mokkal na baat bi rek waaye ahsaaha borom xam-xam yi ni ko firee moo di la ci jëkk mooy xam na li muy firi xam na li muy firi tur yooyu firil nañ ko ba mu xam ko ba noppi meññet ma muy joxe mi ngi mi ngi koy dund meññeet bi muy joxe mi ngi koy dund ndax xam nga turi suñu borom tabaraka wa taala ak ci melokaanam gannaaw bu nit ki xamee maanaam dafa am meññeet mu muy jur ci xolam moo xam ne daa war a feeñ ci ay cëram bi nga xamee ne ci misaal rek suñu borom tabaraka wa taala moo nekk ar-Razzaq nga xam ne wërsëg moo koy joxe woowu tur firil nga ko li muy firi moo di wërsëg bi suñu borom tabaraka wa moo koy joxe kon loolu lan la war a jur yow ci say cir moo di ci sa pas-pas war nga cee mën a xam ne leneen lu dul yàlla sabab lay doon waaye yàlla mooy joxe kooku dana la juraat ne kon boo weetee ci sa béréb bay ñaan tàllal say loxo di ñaan wërsëg sa borom tabaraka wa nga koy ñaan mbir yëpp nag noonu la demee tur yooyu yëpp wenn wu ci ne dafa am maanaam am jeexit boo xam ne itam wum lay jural la ci sa dund képp koo xam ne tur yooyu nee na jàng nga ko ba xam ko dund ko nee na kooka day tàbbi aj kooku moom ndax ku ko nekk sa tawxid dana sell ci anam yépp te képp koo xam ne faatuwàlle na tawxid day dem àjjana euh, julli nag ci kaw ab jabar jabar day moom bu fekkee ne jabar dëgg la kooku moom ci lislaam kéefër atte kéefër la ko jox bu fekkee atte kéefar la ko jox nag kooku ak julleem yemul ci du wér rek waaye mënta jiite ak julli dani nag am na ñoo xam ne danañ tàbbi ci kéefar te xamuñu ne ci kéefar lañ tàbbi su boobaa ñooña lan moo jaadu mooy xamal leen bu dee ku réer la dañ koy xamal su fekkee réerut nag waaye dafa fetteerlu su fekkoon ne nguurug lislaam a taxaw kooku dañ koy yàq maanaam uquba lañ koy teg sanction lañ koy teg su fekkee nguurub lislaam nekku fa nag kenn sañu koo àtte ñëw ne diw sangam ak yéefar la parce que day jëfar parce que loolu boo ko defee mën ngaa am problème sa diggante moom waaye nag ci sa xol bopp yow mën ngaa xam ne kii ab jabar la man du ma jiite julli àtte ko sa àtte bopp te doo ca waxante doo ca sonnante waaye bala ngaa àgg ca loola nag na la wóor ne jabar la ndax léeg-léeg nit ñi dañuy jaawale dañuy gis nit ki moom man kasa ba nangam bu ñëwee ñu bindal ko bindal ko gis naa ko daal muy bindi téere wala gis naa ko muy takk téere te yow xamoo téere yi muy bind lu ca nekk mu daal di koy atte jabar la dëgg la mën naa tàbbi ci biddaa te fekk taxul nag mu tàbbi ci kéefër su nekk su nekkul ci kéefër ak ku mu a doon rek kooku mën naa jiite julli su fekkee ku mën a julli la mën naa jiite julli su fekkee faasiq la bu jiitee julli fisquhu alayhi maanaam ak ak jengam akub kàccooram ci moom lay yem waaye ñoom jiite moom du àgg ci ñoom ginnaaw julli ji wér na ñooñu mën nañoo roy ci saa bu demee nag ba kéefër ñëw na nga xam ne at cëb génn ci lislaam lislaam jox na ko kooka kooka mënatu la jiite kooku nag faw ñu xamal ko su fekkee ku xamut la atte boobu door a tegu ci kawam ñu bare bare dañuy def dara te duñu xam ne lii atte bi mooy nangam ak nangam kon jabar bokk na ci ay mandargaam moo di kii day jii ma xam lu dikk a gut maa ngi dégg ci suba rek ay nit ñu dajaloo fi béréb di jéem a wax naan atum ren nii nangam ak nangam ak nangam fi loolu la chaque ne jéem xam dara ci rëy bu la muy kumpa te dafa bokk ci borom bi tabaraka wa taala jagoo moom dong nga xam ne joxu ci ken dara nag ku ci dëgg ku nekk da nga dugg ci njuumte lu rëy da nga dugg ci dem ci bokkaale borom bi tabaraka wa taala nee na xul waxal yow sama yonent bi yonent bi lay wax la qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi waxal nit ñi ne leen kumpa muy li nëbbu te ñëwagul ñi ci asamaan ak suuf ñëpp kenn xamu ca dara ku dul sunu borom tabaraka wa moom rek moo ko xam kon loolu mbir la moo xam mu mat a xam la moo di ku dugg ci lu mel noonu da dugg ci xeetu njabar te njabar dafay génne nit ci lislaam su fekkee ku duggoon ci lislaam la nag moo tax ñuy wax euh, li ñu tuddee mutuelle de santé mooy miinu six yi mooy am mbooloo àndandoo ñëw ne nun daal dana bëgg weer wu dee kenn ku nekk génne téeméer ñu def ko ci kees kees googu lu muy jëriñ mooy ku feebar ñu faj la ci kooku am na nu muy dagane ci lislaam moo di su fekkee ne kooka la muy génne di ko ca def da ko def mu doon tabarro maanaam loo xam ne da def daal fii sabilillah su fekkee moom feebar na daan lañ ko ci fay waaye su feebaru woon it lay àqam moom may na ko ña feebar su fekkee lam génne noonu la ko dugale kooku moom lu baax la benn problème amu lu baax lay doon loolu mooy fatwa yi nga xam ne moo génn ci ci buntu boobu amma nag Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala asug maandu teem jàpp naa ne moom ci jëmmi boppam rek doy na doy na ak conférence wala wala benn pàcc boo jël sax ci ak dundam rek ak maandoo teem rek boo ko jëloon loolu ab conférence ay réalisation boo ko jëloon mën naa nekk beneen conférence ci gàttal ñu xam ne Omar na Abdul Aziz ak dund gu riche la dund goo xam ne euh, histoire am ak mbaaxam jiitu na muy doon amirul muminin waaye nag bi mu doonee amirul muminin nag ak ràññikoom dafa jéggi dayo ndax bu leen fàtte ne amirul muminin ci jamono yooyu bu ñu ko waxee doonut nit ku doyadi maanaam président yi ñuy wax tey kenn koo ci xam ne la nga jiite jege woon na la amirul muminin doon jiite ci jamono yooyu Omar ibn Abdul Aziz amut lam jiite kenn xamul num toll ci ay mbooloo lay dikk ci baytul maalul muslimin ci ay alal kenn xamul num toll asaka yi buñ ko dajale kenn xamul num toll te Omar bim dikkee lim def dañ koo tuddee islaax maanaam réforme dafa defaraat état bi bim agsee lam fa fekk lépp lépp daf koo defaraat fexe ba maandote dellusiwaat ñi nga xam ne dañoo jëloon ay alal yu moom ak yépp mu nanguwaat ko delloo ko trésor tàmbalee ci këram jabari boppam nga xam ne baayam buur la ay frèram di ay buur lam yoroon ci or kenn xamul nu mu moom soxna si Omar Faatuma bi muy door a dugg ci fal gi ñu ko fal dafa xëy benn bés woo ko mu ñëw mu ne ko Faatuma or bii nga dajale fii ci kër gi doon ne ko ci sa baay yenn yi ci say frère alali jullit yi la tànnal alal ji wala nga tànn su fekkee da ngay continuer nekk ak man alal ji dañ koy jël delloo ko baytul maal su dee da jël sa alal na nga jël sa alal te dellu sa kër baay waaye dootuñu continuer di ànd faasu ma ne ba ah, man ko yow laa tànn mu xëy jël or ba bépp ñi def ko ci ay saako dem yóbbu ko trésor ba mu defee lool tàmbalee ci këram nag ci la nit ñi xam ne ah boo tudd mbir dana yëngu ña dencooni yëf yépp tàmbali di rëg-rëgi ñu ne moom day la nekkoon këram yóbbu la lépp delloo na ko trésor ba kenn dese ba moom ci boppam deseetul dara Omar da daan toog di xiif yàlla xam ne ne bi mu nekk gouverneuru Madina nga xam ne avant muy nekk amirul muminin dafa doonoon ko fonk boppam peñi karawam def yi nangam yor wu rafet bi mu ñëwee ba ñu ko yaayoon ngóor gi matul ñetti weer am ku ko xamoon Madina bi mu dikkee gis ko dana ko wax Omar lii lan la man xamatuma la di mu ne ko lan la mu ne ko sa bi nii mu mel na nga te yow dañoo defe ne xanaa boo agsee ci pouvoir bi da war a mën a gën a naat lu mu ko tontu mu ne ko bu ma amoon ñetti fan ci bàmmeel boo dikkee ba gis ma da nga gis lu la gën a waar kon boobu buur foofu la doon dund ci lislaam bis bi nga xamee ne jëkk naa toog biñ ko yëgalee ne yow lañ yow lañ dénkaane yaa war a nekk amirul muminin biñ ko jàngee ci minbar bi woo julli di ba mu dajee raja ibn xaywa jàng ko bi mu tuddee aw dafa xëm ñi ñëw di ko sotti ndox ba mu jógaat bi mu jógee lu mu leen wax moo di Suleymaan day dafa def loo xam ne tàgguwuma mooy ki mu a nekk amiral muminin te dénkaane ne Omar ibn Abdul Aziz na ko tàgguwuma kon nag man summiku naa ci ba set wecc yéen julli di seet taxaw ne ko yow mu wax ko ba ba mu wax ko ca jàkka ja bi mu génnee fekk ñu indi escorte bu mag bi nga xam ne amirul muminin moom lañ koy defal booba buñ ne amirul muminin naa ngi génn ay xeeti fas la ñuy génne yoo xam ne nañu toll ci ay melokaan ak fas yi ci boppam ni ñu leen di takkal ci gànjar wim waram war moom ak kësës ci moom di tax bu mag ba wa muy war ak ñiy këssee garde ya nangam mu génn xool fas yi ñu taxaw di ko xaar pour bu génnee ci jàkka ji war mu ne lii lu ma doon ñu ne ko lii de mooy mawkibu amirul muminin maanaam escorte bi nga xam ne amirul muminin moom la war a yor mu koy xool ba mu yàgg mu ne lii lépp de alali jullit yi ci saasa la ko wax loolu daal di dox ak tànkam dem këram matul ñetti fan fas yooyu yëpp mu ne nañ ko delloo baytul maal moomeesu ko du alali du alali amirul muminin moomu ñu ne ko waaw daarul xilaafa gi ñu tabaxoon nga xam ne kër gi ku nekk xalifa fi ngay dëkk si nangam niñ ko defar ak la fa ne si or ak nangam nangam mu ne la fa nekk gànjar lépp nañ ko delloo baytul maal continuer dëkk ci këram gam dëkkoon kon Omar ibn Abdul Aziz ci gàttal ku ko bëggoon a delloo si da ngay da ngay yëg ne jamono jamono jii nu toll ci boppam dafa laaj delloo si Omar Abdul Aziz laaj na jàngaat ko jàngal ko xale yi jàngal ko sax mag ko sax yii bañ xam kii mooy kan ak fan la jaaroon ba réparé lu yàqu lan ko fekkoon diggante bu gàtt ñaari at mu dund ko tegaat yëf ci yoon message am jeex mu daal di génn àdduna dem kooku mooy lenn ci Omar ibn Abdul Aziz laa biire nag goo xam ne day jëm ci ndongalu toll ci sàkku xam-xam aku bu waateen du weesu rek laa biire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ittaqillah xaysi ma kunt yow jaamu yàlla bi foo toog fu mu mën a doon ragalel yàlla loo wéet wéet na nga wéttalikoo sa borom tabaraka wa taala boo wéetee am na ku lay contrôlé loolu fexeel ba mu dund ci sa xol ittaqillaha xaysuma kunt dëgg la nag doomu aadama nga loo góorgóorlu góorgóorlu ak loo contrôlé da bis dana ñëw nga jóom su ma jóomee lu muy def mu ne wa atbii sayyi'ata al xasana tamkuha soo juumee def lu ñaaw gaawal nga def yu bare bare bare yu rafet su ko defee ñu effacé ko loolu la ca tegu mooy waxaale fi naasa bi xuluqin xasan nit ñi ngay jëflenteel na nga jëflentee ñoom jëflente bu rafet bu dee koy jëflente ci alal bu dee sa dëkkandoo bu dee sa ku la mag wekk ko teg ko fon ko a teg ak kum mën a doon képp ko dajal tam am ci yow xaq na ko ko jox loolu soo ko defee ci biir askan wi sa diggante sa borom dana rafet sa diggante ak sa moroom yi itam dana rafet loolu mooy melokaanu julli kii woote jàng dara ci xam-xam tanee ko ay moroomam su ma ne ay moroom mooy ñu muy dundandool am na ci ñoo xam ne ñu ko gën a suufee ci at lañ am ci ñoo xam ne ay moroomam lañ ci at am ci ñoo xam ne ñoo ko mag waaye su yàlla dogalee mu tane leen ci xam-xam bu mu jàpp ne moom da leen a daal di ngir xam-xam ok moo leen tane ci wàll googu waaye nag ci jikkoom nag ci la leen di wane luy wane ni moo leen gën te jikko jooju su leen ko cay woon du caagi nii da koy wax du ñëw fëgg dërëm ne kaay leen man maa leen gën ndax maa mel nii maa mel nangam ak nangam ak déedéet day dem ba nit ñi ci seen bopp ñooy xamal seen bopp ni kii lay wax dëgg yàlla xam-xam bii bu nu rawee lii muy dund ak nun wane na ko kii ne ah man de wax dëgg bis sàngam def naa ko nangam naa ne dana mer waaye moom ci boppam moo waaxul boppam ñëw ba sama kër la jëm ca loola ci ne ah man de wax dëgg yàlla am na bis boo xam ne yoreeloon naa ko nangam ak nangam ba defe ne dana ñëw taxawal ma waaye bi ma ñëwee di ko fay sax dafa ne ma ah su fekkee soxla boobu te nga continuer ba ci kanam jëf leen ci sew sewaan yooyu taalibul ilmi ak wootekat bi du ko xeet ndax ci lay moome ab ab ci lay amee lu yaatu digganteem ak nit ñi espace boo xam ne dana am kuñ ko teg loolu nag su ko xasee am rek woote mën naa jàll waaye woote bi li fekk mi ngi doon loo xam ne ab xuloo la diggante ñii ak ñii jàll gi day jafe day am barrage day am miir bu dox ci diggante bi boo xam ne li fay tëjul li fay tëjul jaxasoo gi du war a demee ni mu demee ki yore ab woote ki yore daawa ki yore tawxiid di jëflante nit ñi kooku yërmande la yor moo tax cheikh islam ibnu taymia day wax ne ahlu sunnati aarafu nnaasi bilxaqi wa arxamahum lil xalq ñoo gën a xam dëgg waaye ñoo ëpp yërmande itam ci nit ñi parce que dañuy xam loo xam ne wóor na leen ne nit ñi suñ ko xamee woon noonu ni niñ ko jàppale ñu ko jàpp ñoom itam parce que seen gën a leen koo bëgg maanaam lu baax ñépp ko ko bëgg waaye yow est-ce que lu baax li nii nga ko xamee ñi ci des noonu lañ ko xamee kon fooy jaar ba jëflante ñoom ndànk ndànk ndànk ndànk ba li nga xam ñu xam ko ni nga ko gisee ñu gisee ko noona foofu liggéey bi nekk waaye doo par force li ma xam lépp tey ngeen xam ko ni ma mel itam tey mel ni loolu soo ko defee cooway bari waaye loola du sotti kon faaw dañuy dellusiwaat ci liñ doon wax teey ji gi ak jëfandikoo tadarruj muy ndànk ndànk ndànk allah seen xëyoon ci moom day laaj ci wàllu alquranul karim mu ne na ñu sàngoo ko wala déet mën nañ koo tàggit wala loolu day laaj kii ne ñaari kuréel a ngi kenn ku nekk di wootewu ak gëm yàlla ak lislaam te ñoom ñu jàkkaarloo jàkkaarloo di xeex mu ne julit yërey mbokkam julitam loolu lan mooy laaye biir yi nga ci mën a def euh, keneen ci ci wàllu li nga xamante ne moo di tawassul mu ne jàng nañ ci bi Muusaa tawassuloon na ci góor bu baax boobee. naka noonu. góor bu baax kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam tawassuloon na. naka noonu saxaaba yi nañ ci nga xam ne moo di Abbas. nee na ay tegtal di caloole. te ma am lu see ñuul. mu bëgg mu bëggoon nag. nga daal di ñuy leeralal. tawassul bi nga xam ne moom la sharia nangu te dagana ko waaw naa loolu la ñu mujj def naa waxtu bi jot na tan alhamdulilah euh, bu fekkee alquranul karim la alquran mooy waxi sunu borom tabaraka wa taala ci kaw suuf yoo xam ne jullit bi nag tëblewul ne moom rek moo fi nekk ci wax joo xam wax yàlla la ci ay xarafam ak maanaam kooku mooy alquran al karim muy téere boo xam bu sell la téere bu màgg la boo xam ne gindi xol yi saafara ko moo ko tax a jóg jubbanti nit ñi ñu mustaqim mën jub fii ci àdduna mën a texe ëllëg ca àllaaxira kooku mooy alquranul karim rot na ne alquran shifa maanaam saafara nu doone saafara ngir ñu mën a xam dara ci diine lu mu mën a doon dañuy dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ko jàngalee ndax julli ci boppam alxuraan ba mu ne julli leen jàngalunu nu nuy jullee dañoo dellu ci yonent bi moo nu jàngal nu ñuy jullee waaye su doon alxuraan rek lu lay wax ne julli yi juróom la muy julli suba tisbaar takkusaan timis gee loolu nekkul ci alxuraan lu lay wax ni julli suba ñaari rakkaa la tisbaar ak takkusaan ak gee ñeent lañ timis ñett la loola nekkul ci alxuraan waaye ba mu ne julli leen dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal na nuy jullee xamal nu ñaata jullee am julli gu ne ñaata rakkaa boo ci kabar looy wax boo sëlmali looy wax booy def sikkar yi nekk ci biir julli yépp bi alayhi salaatu wasalaam détaillé ñu ko ba mu leer kon bi alxuraan waxee ne alxuraan ci boppam shifaa la ngir lu bëgg a xam nan ci saafara woo nan delsi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu jàngaloon julli nu jàngale saafara googu moo di def ko daan léemoo daf ko daan mocce nit ki dara da koy dal mu ñëw ñu jàng alxuraan ëf ko ca mu wér nit ki day dem bay tëdd jàng lam man ci alxuraan ëf ko ci ay loxoom raay ko ci aw yaramam tëdd nit ke day léemoo ayatul kursi day léemoo mën a léemoo ci anam gu mel noonu bi sallallahu ko waxul waaye da loolu moo sax beneen bi moo sangoo alxuraan ci boppam ak takk ko lu ci nekk du mën a mucc ci doya ko bul fàtte yaa ngi jëflanteeg wax ji gën a sell ci kaw suuf waxe ci bind samawaati wal ardi wa ma baynahuma jooju ngay jëflanteel nga jël ko bind ko ci kayit wala ci àll ba noppi raxas ko mu wóor la ne ndoxum daa mii nga tiim alxuraanul karim la nga jël ko fab ko di ko sotti ci saw yaram fa nga koy sottee léeg-léeg mu doon gërëb boo xam ne sellut kon kooku doyadal alxuraan karim mi ngi gannaaw bu doyadal googu jàlle ba àggal fétal mi ngi ci fétal moo di ka xàlloon yoon wa ne la man kat fii lañ jaar yonent bi dane woon léemu lañ ciy def nga daa xaaral man ma sangoo ko kon fétal nga weneen yoon woo xam ne bokkut ak ba mu xàlloon fétal ñaare ci réer rek lay ci ginnaaw xàll waa ngi fi jaaral ci xàll yi waaye bul féetal ne su ma jaaree fii dëkk ba day gën a gàtt wala damay def bi boo ko defee mën ngaa dem ba mu yàgg da ngay dellusiwaat fi nga jóge woon te doo ko yëg beneen ba moo di takk yi jëmmi takk googu ci boppam benn saxul moom it ak féetal rek lay ma a doon beneen bi dale dale ngi ndax même ñii wax ci borom xam-xam yi ne mënees naa takk alxuraan dañ ko wutal sart yoo xam ne boo ko xoolee da ngay gis ko takk ku dañ lay wax moom lii nga takk mu doon ab téere day faj wala day jëriñ waaye boo ko gëmee bokkaale lay doon kon tey ma bañ ko takk beneen bi dañ lay wax ne boo ko takkee doo dugg ak moom foo xam ne sobe la maanaam doo ànd ak sa soxna di ko takk doo dugg ca a di ko takk kon daal yaa ngi takk loo xam ne dana la sonal ndax yow gëmoo ne day jariñ day lor ndax soo ko gëmee nañ kon da ngay dugg ci bokkaale te saa boo bëggee jóg jëm ca wana ba da ngay tekki tekki ba jël su fekkee da ngaa gëm ne moo lay aar kon lan moo lay aar ba ba ngay dugg ca wana ba jël si waat te dee booy ànd ak soxna si faaw nga tekki ko teg fële ba yooyu yëpp jàll ba ba ngay sangu ba suba kon guddi googu nga tëdd mu nekk fële moom itam lu nekk xaj na fi bu fekkee moo lay aar faatu mën naa am si diggante bi yooyu yëpp nag li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ànd ak ne mooy sunna moo ëpp efficacité ndax moo ëpp njariñ mooy léemu gi yooyu conséquence yooyu ma wax yooyu yëpp amu ci moo di dinaa dugg na ci sobe saak ànd naag soxna sax def jàng na ko ñaan na ko na ci yaram ma bu jeex borom bi tabaraka wa taala moo koy aar ca loola kon loolu mooy li sax ci alxuraan leneen lu dul loolu du doon loo xam ne li sax la ñaari kuréel yoo xam ne ñëpp ay jullit ba noppi ñuy xeex nag ñooñu ñu ngi ci danse nee na boo xam ne dafa rey mbokku jullitam ci lu mel noonu ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci sawara maanaam kañ rey ak ka ko rey nee na ñoom ñëpp seen at mooy dugg sawara ñu ne ko ah waaw yow yonentu yàlla bi ci ci rey a kay mën na ñëw comprendre ne moom mën naa dugg sawara ginnaaw moo ko mu ne comme rey sawara la jëm ndax moom it da ko bëggoon a rey kii da ko jekku rek waaye kaana xarisan ala qatli saaxibihi moom itam dafa bëggoon a rey ki ci def kii jëkk ko ca kon nee na ñoom ñaar ñëpp seen mbugal mooy dugg sawara lu dul su leen borom bi tabaraka wa taala jéggalee kon kooku musiba la am na tawassul yi mu tudd fii nag tawassul buñ ko waxee mooy kerkeraal mooy li nga bëgg nga jaare ko ci diw sàngam ngir nga am ko maanaam soxla nga dara ci kilifa moo xam président communauté rurale la wala gouverneur la wala sous la wala président la wala ministre la soxla nga dara nga dem ci koo xam ne moom xam nga ne kooka jege na ko nga jaare ko ci moom ngir am li nga bëgg loolu la ñuy tudde kerkeraanu ci wolof kerkeraanu mooy tawassul kon ci kii nga jaare pour àgg ca fi yitte jëlee nga ne nag kon ci ngay tawassulal mooy li nga bëgg ci yàlla nga jaare ko ca kooka ndax nga mën a am li nga bëgg loola lu muy doon bu fekkee dañuy laaj ci sharia yi fan la nit ki mën a tawassul ba àgg ca lu mu bëgg sharia leeral na ko ba ca jëkk moo di walillahi al asmaau al biha turi sunu borom tabaraka wa taala yi mën nga cee jaare ba am li nga bëgg mooy booy ñaan yàlla wërsëg nga ne ko yow mi wërsëgale maa ngi lay ñaan wërsëg yow mi guddal fan yi maa ngi ñaan nga guddal sama fan yow mi wàcce xéewal yi yàlla na nga wàcce xéewal ci maanaam ñaaniin yooyu sariya nag na ko beneen bi moo di nit ku baax nga ne ko ñaanal ma bul ma fàtte ci ñaan bu demee ba toog ci bérébam ba muy ñaan mu ne yow sama borom yàlla na nga ma defal nangam te defal ma te defal ko diw sàngam ñaanal loolu sariya nag mu na ko beneen ba ca des mooy sa jëf ju baax nag yow sa jëf ju baax defe naa ne xadis bi ñëwoon ci asxaabul gaar muy ñett ña nga xam ne dañ doon tukki ba dugg ci am xunti mu tëju ci seen biir loola wane na ko xista bu gudd la la koy gàttal ñu ngi ci téere yu wér yi dañoo tukki ba dugg ci xunti mi am xunti mu nekk ci aw doj maanaam am lëm mu mag daal moo xam ne ci biir montagne la nekk ñoom ñi ñëw dugg foofa pour fanaan fa ba suba bañ fa duggee aw doj jóge mag dërëngu ba ñëw upp bunt ba mënuñu ko puus mu génn mënatuñoo génn te ñu ca biir xurwa te kenn nekku kon musiba ñëw na maanaam dee dikk na biñ toogee ñu ne nan la ñuy def ñu ne ah kenn ku ne da ngay seet jëf ju baax yoo xam ne defoon nga ko mu wóor la ne sell na ngir yàlla loola nga ñaan ca yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nuy nett bi nee kenn ki ñaan yàlla ci rafetal gum doon rafetal jëme ci ay waajuram nee ba àgg na ci am na benn bis mu dem rat ak juróom ba àggal ñëw di indili yaayam ak baayam ci seen kër liñ war a naan ci soow mi ndax bala ñoo naan lim baaxoo mooy bala ñoo naan moom waa këram yaayam ak baayam dañuy naan ba noppi mu door a jël yóbbu këram bi mu ñëwee mu fekk leen ñuy nelaw bëggu leen yee mu taxaw noonu yor ay taxam di leen xaar di leen xaar ba fajar jot bañ noddee ñu jóg fekk ko muy taxaw mu ne leen biig ba tey de maa ngi taxaw di leen nekk waa kër ga sax de réeragul daal leen di jox seenum soow ñu naan mu door a dem këram mu ne yàlla su fekkee loolee ma defoon jëmale ko ci ñaari waajur sa jëmm rek a taxoon yàlla na nu dimbali nu génn fii nu nekk naka mu wax loolu xeer wane dayeet waaye taxul nag ñu mën a génn maanaam yëngu na daal bañ xam ne xeer yi moom yëngu na jeneen waa ji ci def mu ne dafa am ku jigéen koo xam ne doomi bàjjanam la woon koo xam ne moom waa da koo bëgg woon jàppandiwul mu bëgg ko ci wàllu caaxaan jàppandiwul ndaw si di dem ba jimmi jamono jamono dab ko amatul lum lekk muy sàkku ndimbal ñëw ci waa ji ne ko ah, la ma la waxoon rek su fekkee ne daal nangu nga loola ma jox la ndaw si ñàkk na fexe xiif na amut lu mu lekk mu ne ah loolu day moo fi sës bi waa ji demee ba dara desu dudul ànd ak moom ndaw si ne ko ragalal yàlla turu yàlla bi ñu ko tuddee rek waa ji siit taxaw yemale foofa la mu doon bëgg a def mi ngi ci xunti bi tey mu ne yow sama borom bu fekkee mooy yàlla googee ma bàyyi woon sa tur way tudd moo tax ma bàyyi ko kon dimbali nu nu génn fii naka mu ko def doj wi fi ba ñu yëg ne yëngu na waaye taxul ñu mën a génn keneen ki ci des mu ne dafa amoon ab surgaam boo xam ne daa ñëwoon nawetaan fi moom bi muy dem am na benn gàtt bu mu fa bàyyi woon mu defoon ne day delsi mu dem delsi wut waa ji yor gàtt ba gàtt ba nekk fa di jur di jur ba mu yàgg mu doon gétt maanaam gàtt ba mujj na doon gétt waa ji di dox bis ba ñëw fa waa ji gis ko xanaa kii du sama waa ji mu ne oxo oh, kay mu ne ko yow day sa gàtt ba nég nañ li ci nég nég gisuñu la mu ne mi ngi dund ba tey mu ne ko ah waaw lii ngay gis lépp de xoolal xur wi mu xool di xar yi tasaaroo ci xur wi mu ne ko lii lépp moo ko jur yaa ko moom mu ne ko xanaa dag may reetaan mu ne ko déedéet yaa ko moom de waaje ne maandute googi yow sama borom su fekkee ne sàmmoonteeg say ndigal ak say cere moo taxoon ma def ko kon yàlla na nu génne fi nu nekk doj wa daal di bérangu ñu daal di génne ñoom ñett ñëpp di dox kon ñett ñooñu kenn ku ci ne tawassul nga maanaam kerkeraanu nga wala ñaane nga yàlla ci jëf joo xam ne si jëf la yow kii ci rafetal jëme ci ay waajuram la kii ci bàyyi ak mooy yàlla boo xam ne mënoon na koo def la kii ci ak maandu ci alali jàmbur borom bi tabaraka wa musal leen ko loolu kon ñetti tawassul yi moo am turi yàlla yi sa jëf ju baax yow ak ñaanu nit koo xam ne rafet nga moom ci moom njort ne nit ku baax la ñaanu la ñett yooyu ñoo beneen xeetu tawassul buñ la wax bu mën a doon nag du doon bu dagan tawassul bi ci bi nga xam ne moom lañ yaakaar ne day wone loolu mooy Omar ibn al <coughs> dañuy def li ñuy wax mbaaw naan maanaam salaatul istisqa buñ ko waxee nag waxuñu mbaaw naan yi ceddo yi def muy muy góor ñi sol yére jigéen jigéen ñi sol ay yére góor ñi génn ne dañuy mbaaw naan wala ngay rey bët bëtóor di teg ca eh, janji ba walla ca xorondoom ba déedéet du loola salaatul istisqa dañuy génn julli xutba ñaan sun borom tabaraka wa taala bañ génnee di ko def Omar ibnu Xataab daal di ne yow Abbas nun day dan daan kerkeraanu ci yonentu yàlla bi yow nag yaay baayam kaay nu kerkeraanu ci yow Abbas ñëw jiite ñaan nga kon ban xeetu tawassul la jëfandikoo foofu mooy bi ma waxoon léegi muy duaa u rajulin saalih ñaanu nit ku baax waaye li ñu tudde tawassul bil jaah wala tawassul bil zaat su fekkoon ni ci jëmmam ci jëmmam la ñuy tawassul wala ci darajaam la ñuy tawassul kon du fa bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci moom yonente bi darajaam nga fa ba tey darajaam moom xayyan wa mayitan su fekkee mi ngi dund ak su génne àdduna lépp daraja jëm amoon la am la tax Omar bàyyi ko fa te nekk ci biir Madina xabru ba nekk fee néewul kaay la ñu dem ci xabru ba tawasul ci yonente bi ndax noonu lañ daan def waaye ñëw ci Abbas mii dund xam na ne kon tawasul ko ci faaf ku faaf kooku benn bind la ñaareel bi xam na ne tawassul ci nit ki mooy mu ñaanal la kon loolu mooy ñaan nga moo tax Muawiyatu ibn Abi Sufyaan def na ko ci ay jamono dafa génn nit ñi julli julli mbaaw naan moom itam mu daal ne ana Yazid ibn Aswad al Jurashi ñu ne ko ma nga de mu ne Yazid kaay ku bokk ci taabiroon yi la bokkoon ku baax la sa siiwee woon ak ragal yàlla mu ne ko kaay ñaan ñëwal ñu tawassul ci yow mu ñëw taxaw bi ñu jullee ba àggal mu taxaw di ñaan nit ñi ànd ak moom ñaan kon loolu kat mooy tawassul bi ñooñu di wax ci jàpp ne mënees na koo def mu nekk tawassul boo xam ne lu jóg lu ne nga tawassul def ne diw sàngam di jaay nangam di jaangam yooyu doonut yoo xam ne yu sax ci sharia la doonut yoo xam ne yu am dalil la Moussa dafa tawassul nag ci xodar nag loolu moom maa ngi koy door maa ngi koy a dégg moom loolu moom moom kenn defe naa ne ñi gën a xóot ci biddaa sax tey dund ci yu mel noonu àgguñu ci wax lu mel noonu euh, kon su fekkee ne tawassul ba lañ ci jublu mooy ñëw jàng si ci moom dëgg la loolu moom ñëw na jàng doon na sàkku si ci moom xam su fekkee tawassul bu mel noonu la boobu moom dagan na maanaam nga dem ci liste bi ci moom xam-xam li ñuy tëje foofu ci wàllu tawassul boobu mooy ñu xam ne tawassul dafa am ñaari maana al wasiila boo xam ne mooy jëlee ci suuf di yóbbu ci kaw ak buy jëlee ci kaw di andi ci suuf biy jëlee ci kaw di ci suuf dagan na moo di lépp loo xam ne sharia la wala lu ñuy jàngale ci diine yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko jëlee ci boroomam indi nu ko kooku bu dagan la waaye bu dee tawassulub nag ne nit day jëlee fii dara ci suuf loo xam ne day ñaan yàlla wala dafa am lu mu loo xam ne day mel ni yàlla mënu koo déggee ci moom direct mu jëlee ko ci moom pour jottali ko sunu borom loolu moom mënta nekk daganut sax tey dafa ñaaw sax nag surtout tàllal say loxo di ñaan yàlla ba noppi ne ko may ma nag ci barkeb diw kooku moom musiba mu mag a mag la moo xam ne defe naa ne fii ci àdduna képp boo yoroon looy toppatoo ñu ñenee la président jox na la audience tey kaay nga wax sa projet yi nga ñëw toog wax ak président ba àggal ne ko lii nangam ak nangam waaye nag dama bëgg soo ma koy jox nga jox ma ci darajee sa ministère bi kon boo wëtuwut la ngay la nga doon doo ko am da lay wax kon demal ca sama ministre ba mu lijjanti ko ginnaaw moom moom ci moom nga koy jaarale kon demal ci moom kon jamono yi nga tàllalee say loxo di ñaan sa borom tabaraka wa taala fàtteel keneen ku dul moom ci diggante boobu moom rek ngay ñaan foofu su ko defee mu may la waaye boo ne ko jaaree naa ko fee wala def naa nii wala diwa man déedéet loolu dama la léeg-léeg nit ñi li yàq seen bopp dañ naan ginnaaw nun ñu xeebu lan Euh, dañoo bari ay bàkkaar nangam nangam su ñaanee direct duñ ko nangu déedéet mbirum yàlla demewul noonu daf ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan falyastajibuuni walyuminu bi laallahum yarshudun daf ne suñ ma la laajee nee leen jege naa leen lool suñ ma ñaanee ma may leen wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum nee na ñaan leen ma ma may leen iblis kuy salte moo la gën a salte kuy bon moo la gën a bon ba noppi ñaan na yàlla ñaan boo xam ne muy ñaan gi gën a rëy ci ñaan yi rab bi am rabbi anzirni ila yawmi yubasun yàlla bàyyi ma fi ma bañ a faatu ba keroog nit ñi dekk li ko fa innaka minal yàlla may ko loola sa tawassul ci kenn de ñëw ci barke kii wala kenn laa koy jaare direct ak nam salteeg nam boneeg doon moykatu yàlla bi gën a mag nga xam ne mooy yàlla go am gu ne daanaka ci moom la jógee ànd ak loolu mu jàkkaarloo boroomam ne ko rabbi yow saa boroom bàyyi ma fi ba keroog nit ñi dekk yàlla ne ko may naa la loolu kooka su mënee ñaan yàlla mu may ko kooku da lay wóor ne borom bi tabaraka wa taala diggee ba mu defoon te yàlla laa yoxlaful miaar lu mu diggee lu ne da koy def kon udoo li astajib lakum ja moom la jëflanteeg iblis te loolu kon mën na ko ko bañ may wax dëgg yàlla waaye teewul nag may na ko ko kon yow jaamu yàlla bi loo xeeb xeeb sa bopp loo bari bari bàkkaar loo suufe suufe xamal ne buntu sa borom tabaraka wa taala ubbil na la ko ci ñaari anam ubbil na ko ci tuub muy bàyyi bàkkaar yaag mbon gaag caay-caay gaag caaxaan gaag bokkaale gaag wax yu jëmul fenn waaye ubbil na la ko buntub ñaanal ma may la wut nag ay waxtu yoo xam ne boo ko dàkkee ñaan ci fa lañ koy gën a yaakaare yàlla na nu borom bi tabaraka wa taala jàpp ndal yooyu yëpp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain